di wan ne suñu teewaay fii ci ñumaan euh, ngir fa yéene li nga xam ne euh, moom la war a taxawu askan bi jàppale leen tax ñu yendu ak ñoom tey def fi ay consultation gratis jël fi ay fourniture jox ko élèves yi ci école yi ànd ak askan bi toog waxtaan ak ñoom ci élection yi ñu jël mu leer na ne tey lépp loo xam ne ñu ko ci daw guddi ak bëccëg ànd ko ak ñoom lépp pour jàppale askan wi ndax Ndioumane dafa bokk ci communes yi nga xam ne tey ci département Mbacké mën nañoo wax ne mooy commune yi gën a arriéré waaye nag tey yéene ji nga xam ne am nañ ko ak it pas bi nga xam ne am nañ ko ak it jaxasoo bi nga xam ne jaxasoo nañ ko ak gouvernement Sénégal ci gis ne bunt yu bëree bëri ci réew mi ak liggéey yu bëri fi nga xam ne moom la fi yàlla teg mu jiite réew mi muy sunu xarit président Macky Sall mi ngi fiy liggéey liggéey yu waaye nag dafa yemut rek nag ci ab maire mu toog benn place ah, lépp loo xam ne nii askan wi soxla nañ ko ah, mu dem ci xew rek yam ci ab maire dafa war a xëy suba ba ngoon jot waa këram duñ ko gis du yendu du fanaanal ngir lan ngir soxlay askan bi kon ñun noonu lañ jàngatee ne ab maire noonu la war a doxe loolu nag tax na ñu engagé xam ne fii ci commune liggéey bi nga xam ne moom la war ñu war ko fee def faw ñuy dem ci ci kaw muy gouvernement bi di leen demande soxlay askan wi ak di génn ci réew mi bitim réew xam ne ay partenaires ñu ngi fi nekk ci parte ci monde entier partenaires yooyu di jàppale askan yi ak union européenne wala yeneen ay organisation yoo xam ne ñi fi nekk di jàppale askan wi kon nag loolu tey moo taxoon ñu taxaw fii wane suñ taxawaay ci SONES bi muy ndaw ñi ndax fekk na ndaw ñi jafe-jafe yi bari ci ñoom lool fekk na ndaw ñi wàllu liggéey metti ci ñoom ndax benn liggéey rek lan amuy mayu nawet bu jeexee ñetti weer la bu jeexee juróom-ñeenti weer yëpp kenn du ci defati dara ñenn ñi dañuy nooraani ñenn ñi tamit toog bi ci ay jafe-jafe ñu ne nag loolu lépp nag fas yéene nan bis bu nekkee maire loolu dana jeex parce que xam nan fan lan war a jaar ak naka lan war a def ba loolu jeex ndax mayu noor rek du mayu nawet rek du mbay mayu noor mu ngi fi ci suuf si di ñu maan itili jëfandiku naa ko jàngat naa ko yóbbu naa ko ñu def ci ay njàngat ba nga xam ne mbayu noor mën na fee am ndax tey ku jëm fale ci doyal dana gis ne maa ngi fay def lu bari ci lu mel noonu kon lan moo tee dëkk yi yi ñu wër lu mel noonu man faa am ci loolu bu ma amee jàppalem ndaw ñi ci jàpp naa ne ndaw ñi ñu ci bari ñu ngi ci sama wet kon jàpp naa ne loolu dana yomb lu ne ndax jàpp naa ne benn bis rek buñ xëyee une semaine bu ñee ñu ne dëkk sàngam la nan fa fas yéene jëmbat ci ay garab nan fa jëm tax lu jëm ci mbayum noor jàpp naa ne buñ paree demaat ci beneen dëkk bu yàggee dëkk yëpp dana naat ci yooyu yëpp nag li koy waral mooy sa commune nga ànd ak ndaw ñi mag ñi xelal leen jigéen ñi dooleel leen bu ko defee commune bi ñu mën koo suqali ca insha allahu rabbi gëm nañ loolu ceen jàpp naa ne ndaw ñi gëm nañ loolu leneen la des nag ñu jàppale leen ci wàllu sport ak yeneen yeneen ndax en tant que kilifa diine moom bu ne mais ab euh, lu ci loolu ñu beneen bët bët lañ ko gisee waaye en tant que maire bu war a mën a yilif ay gox jàpp naa ne ña ngay yilif nag lépp da caa nekk kon ñëpp nga war a mën a jàppale loolu nag moom daneen bàyyi ñi nga xam ne ñooñu war a représenté ci terrain bi bu buñ ci eggee ñu wax ak ñooñu ci lu jëm ci loolu jàpp leen ni daal waaye yéen waa ñu maan suñu yitte ak suñu pas-pas mooy jàppale leen moo tax ñu dugg ci euh, commune bi fas yéene koo ànd ak yéen jàppale leen ba fa mu bëgg mu egg mooy fa